lycée mu Laye mu nekk fii ci Géejawaay mu nekk lycée bu am solo ci Géejawaay parce que am na daanaka juróom-ñeenti junni ndongo yu fi jànge loolu du lu ndaw ci Géejawaay mais aussi du lu ndaw ci système de formation professionnelle moo taxoon ma ñëw fi ànd ak sama collaborateurs yi ànd ak monsieur le ñu xool euh, ak les autorités de déconcentrées le maire et puis le maire de la ville ñu xool ci yan condition lañ nekk pour mën a indi ay saafara ci yi ñu mën a def mais aussi améliorer les conditions de travail fii ci Limamoulaye bi ñu ko xoolee ba pare man nekkoon naa fi jàngale naa fi Limamoulaye xam naa lycée bi bu baax euh, xam nañ ne am na ay tuuti jafe-jafe ci wàllu infrastructure président la république moo ko njëkk a xam moom mi décidé woon il y a un an un an et demi joxe millions pour ñu réhabiliter donc maa ngi wax léegi proviseur ne ci logique boobu la ñu président de la république woo mooy ñu def ay infrastructure ak ay équipements de dernière génération pour la formation professionnelle ñu def très rapidement un document englobant pas mu bañ a nekk rek laal fii tey bàyyi fii suba mais un document global dans lequel dinañ mën a xam lan lañ soxla en termes de réhabilitation lan lañ soxla en terme de ressources financières mais tout ça pour xool aussi xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw jànge si fi seen ay bourses moo wax ne du sama daje bu njëkk ak ñoom parce que dajale woon naa ak ñoom ndar bi ma demee visite Pétavin gis naa leen fa ñu waxtaan ñëw nañ sama bureau ma waxtaan ak ñoom tey aussi dalal naa leen déglu leen ci wàllu bourse yi ñoom dañu am confédération boo xam ni mooy tënk élèves yi ak techniciens yi nekk ci Sénégal man loolu lu baax la ñu joxe seen plateforme mais tey bi ci gën a fees mooy bourse bi